wasalaatu wasalaamu ala asrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa mawlana muhammadin alamin wa ala alihi wa saxbihi ajmain laqin lisaani waxlulan minhu lwaqad wajcalhu zakiran wa shakiran abad wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu ko ñu jéggal comme ni ko baaxoo andi ak yéen yi ay bis bu jot yi suñu jotaayi xam-xam yi nga xam ne ci lañuy fàttalenteendoo ak yéen lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu yi jataay yooyu lañuy dikkaat ak yéen mu mel ni bind bi ñu bëgg ànd ak yéen tey day aju ci bunt bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu jaglee euh, jagleel ko euh, ñi nga xam ne ñooy yenent yi ak naka lañ leen war a gëme moom la sëriñ bi radiyallahu anhu tuddee at bi kayfiyati l imaani bir rusuli alayhim assalatu wassalaam mooy bunt bi day xamle naka lañu war a gëme yonente yi alayhim salaatu wassalaam waaye naka lañ lañ lañ war a xame lan mooy àq yi nga xam ne dafa war ci ñoom waaye itam jikko yi nga xam ne dafa war a nekk ci ñoom yonente yi te suñu borom bi subhanahu waral ko ci ñoom loolu sëriñ bi radiyallahu anhu moom la ñuy leeral ci buntu bii li ñu war a gëm ci yonente yi waaye xam lan moo wat ci seen àq itam waaye xam li nga xam ne itam daggan na ci seeni jëmm mu nekk ci ñoom te du ca doon ay yëpp waaye du wàññi dara ci li nga xam ne mooy mission bi nga xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa taala di doxloo sëriñ bi tàmbali bunt bi mu ne imaanukum seenu ngëm bir rusuli ci yonent yi tasdiqun mooy dëggal bihim ci ñoom summa bi ma topp ca la nga xam ne jaa u dikke nañu bihi ca moom min rabbihim mu tukkee ci seen borom bi subhanahu wa taala sëriñ bi na seenu ngëm ci yonente yi de mooy ngeen dëggal leen maanaam ngeen dëggal ne yonente yi moom ay ndaw lan ñoo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala moom moo leen yónni waaye jox leen ay mission yoo xam ne moom lañu war a mottali si ndax xeet yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon xeet yi ci ne suñu borom subhanahu wa taala daf ci daan yónnee ay yonent ngir mu leen di jubbanti waaye ngir mu leen di teg ci aw yoon waaye ngir mu leen di xamal suñu borom bi subhanahu wa taala noonu la yonent yooyu doon toftaloo ba agsi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom mooy yonent bi fi mujj te it ab yonent dootu ñëw ginnaawam yonent yooyu yëpp li nga xam ne moom lañ doon dox muy seen mission lenn rek la mooy jotale euh, lettre message bi nga xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa taala jox ñu jotale ko ñi nga xam ne ñoo mbindeef kon yonent yooyu noonu sëriñ bi radiyallahu anhu ne na gëm gi ngeen war a gëm yonent yi day mooy ngeen dëggal ne ñoom de ay ndawi yàlla lan suñu borom bi subhanahu wa la moo leen yónni waaye itam ngeen dëggal li nga xam ne moom lañ indi jële ko ci suñu borom bi subhanahu wa taala te loolu du leen lu dul ak njub waaye leen loolu du leen lu dut doo jëfe ndigal lii nga xam ne moom leen suñu borom subhanahu wa la sant waaye loolu du leen lu dut jiima euh, jubbanti ñi nga xam ne ñooy bindee fi ba ñu tege ci aw yoon mu ne wa annahum ak naka ñoom yonent yooyee yajibu dana war fi xaqihim ci seen ak sidxun dëggal maanaam dëggu amaanatun ak kóolute wa tabliquhum ak seenu jotale yonent yi alayhim asalaatu salaam dafa am jikko yoo xam ne faw ab yonent jikko yooyu day nekk ci moom jikko yooyu mënuta ñàkk ci ab yonent li ci jiitu mooy dëggu maanaam ab yonent dafa war a nekk koo xam ne ku dëggu lay doon maanaam lépp loo xam ne moom lay wax rek lu dëggu lay doon ndax lépp lu muy wax suñu borom subhanahu wa taala moom moo koy digal ngir mu war koo wax kon lépp lu muy wax rek lu dëggu lay doon kon ab yonent ku dëggu la war a nekk waaye kuy dëggal lay la war a nekk itam ñaareel ba bokk na ci seen jikko yooyu nga xam ne dafa war ci seen ak mooy amaana mooy li ñuy tuddee kóolute ab yonent dafa war a wóor dafa war a wóor euh, nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mën nañ ko ci jël comme misaal nga xam ne dafa wóoroon ba màkk lépp loo xam ne moom lañ fa doon dénkaane moom lañ ko daan dénk moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir lan ngir ak wóoram kon euh, ab yonent dafa war a wóor bokk na ci jikko yonent mooy dafa war a wóor genn euh, naafiq wala genn client wóor te nekk ci euh, ab yonent ndax li tax mu war a wóor mooy li nga xam ne moom lay jotale lépp comme ay message loolu kóolute daf cee baax waaye joxe ko ni nga xam ne noonu lan la ko joxe loolu yitam daf cee am solo lool ba tax na kon ab yonent mënta def lu dul am kóolute maanaam mënta nekk lu dul nit ku wóor kon loolu itam dafa yellu ci seen àq ñetteel ba itam bokk na ci seen àq yi nga xam ne dafa war ñoom mooy ñu jotale li nga xam ne moom la leen suñu borom bi subhanahu wa taala yónni euh, ñu war ko euh, jotale ñi nga xam ne ñoom ci ñoom la leen suñu borom bi subhanahu wa taala yónni yonent bu ne xeet wa nga xam ne moom lañ ko yónni Euh, dafa war ci moom mu jotale leen maanaam li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala euh, moom moom la ko suñu borom subhanahu wa taala jox comme ab message mu war koo jàllale ci nitam ñooñu euh, ndax li nga xam ne mooy nëbb nëbb wóorul ab yonent mooy li ñuy wax kitmaan loolu dañ koy tere ab yonent ab yonent li nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa Euh, yónni mu war koo mottali daf koo war a biral ba ñëpp xam ko moo tax yonente bi saa sallam suñ boroom wax ko ne ko a ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam tafaal fama balagta risalatihi euh, risalatahu fa in lam tafaal fama balagta risalatahu kon loolu day tegtal ne ab yonent moom li ko suñu borom bi subhanahu wa taala yónni daf ko war a matale ba mu mat sëkk waaye daf ko war a jotale mi nga xam ne ci ñoom la ko suñu borom bi subhanahu wa taala yónni waaye jotale ko itam ci anam ba nga xam ne noonu la ko suñu borom bi subhanahu wa taala santaane moo tax suñu borom bi subhanahu wa taala waxoon yonent bi ne ko fasda' bimaa tu'mar ma a'rid 'anil mushrikiin maanaam na nga biral li nga xam ne moom lañ la yónni te nga wan ginnaaw ñi nga xam ne ñooy way bokkaale suñu borom subhanahu wa taala kon melokaan yooyu ay melokaan la yoo xam ne mënta ñàkk ci ab waaye muy kóolute waaye muy jottali li nga xam ne euh, moom la leen suñu borom subhanahu wa taala yónni muy message yi nga xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa taala jox ñu war koo jàllale ci ñi nga xam ne ñooy euh, doomu aadama yi waaye noonu nga xam ne noonu la loolu war ci seeni àq muy jikko yooyu noonu mu war ci ñoom itam noonu la seeni safaan jombe ci ñoom moo tax sëriñ bi wax ne summa istihaalatun topp dana jomb fi xaqihim ci seen àq ñoom yonente yi kasibun wax lu du dëgg xiyaanatun wor ay danni ki noonu wa kitmaanum ak nëbb dëgg tajib goog dana war kon ginnaaw ba nga xamee ne ñoom yonente yi alayhimu salaatu wasalaam jikko yële nga xam ne euh, mooy dëggu dafa war a nekk ci ñoom dañoo war a nekk nit ñu dëggu nekki noonu itam noonu la ab safaan di jombe ci ñoom kon wax dëgg loolu dafa jomb ci ab yonent mu nekk ci moom ab yonent lu muy wax rek dëgg lay doon niki itam li nga xam ne mooy euh, wor li nga xam ne mooy wor itam jikko la joo xam ne euh, dafa jomb mu nekk ci ab yonent ab yonent dafa war a nekk euh, ku wóor koo xam ne li nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala sant te joxale ko ko nam ko ko sant te joxale ko ko noonu la koy joxee waaye du ci yokk du ci wàññi kon dafa war a nekk ku wóor waaye warta nekk koo xam ne kuy wóor lay doon Euh, beneen ba itam suñu borom bi subhanahu wa taala daf leen a digal lii nga xam ne moom la leen yónni ñu jottali ko ci ñi nga xam ne ñoom la leen yónni kon nëbb li ñu leen yónni loolu day araam ci ab yonent ab yonent li nga xam ne moom la ko suñu borom bi subhanahu wa taala jottiloo message boobu ab yonent daf ko war a jottali ba mu mat sëkk waaye waru cee ko dara kon ñetti jikko yee na mu yaye ci seen àq mu nekk ci seen jëmm ñetti jikko yi itam noonu la jombe mu nekk seen jëmm ñoom yeneen yi alayhim salaatu wasalaam bu ñu waxee dëggu nag luñ ci jublu mu ne asidqu dëggu mooy lan ixbaarun mooy xibaar bi maa la nga xam ne xattaa baxa euh, dëgg dëgg dëppoo na xaqiqatan ca dëgg al xaqiqatal muxbiri dëggi dëggi lañu xibaar xool waxal wa waafaxaate mu dëppoo ak moom nee na dëggu de bu ñu ko waxee li ñu ci jublu mooy euh, nga xibaar mooy nga xibaar xibaar boo xam ne dëppoo na ak li am xibaar boo dëppoo na ak la ngay xibaar maanaam la ngay xibaar ak li am dëppoo loolu moom lañ jublu ci dëgg suñu borom subhanahu wa taala daf laa wax ne demal waxal ma euh, euh, ñi nga xam ne ñooy mbindee fi nangam nga ñëw xibaare ko nanga xam ne noonu la ko suñu borom subhanahu wa la waxee loolu moom la ñuy tudde dëgg mooy nga xibaar xibaar boo xam ne na mu xewe na mu rek noonu nga ko xibaare kon loolu mooy dëggu bañ cee yokku bañ cee wàññi amal amaanatu ndaal kóorute fa am man ca ña nga xam ne xàqaqa dëggu dëggu euh, gëstu nañ xefsul jawaarixi mooy sàmm cër yi wattu leen jamian boole seen mutlaxa bu mu ci man di doon nee na al amaana yi nga xam ne moom la wax nag muy kóolute yonent war ko uh, def mu war a nekk ci uh, mu war a bokk ci jikko yonent yi alayhimu salaatu wasalaam mooy lan nee na li mu ci jublu dëgg-dëgg mooy xefzul jawaarix mooy ab yonent dafa war a wattu ay cëram dafa war a wattu ay cëram dafa war a sàmm ay cëram ci lépp loo xam ne uh, man naa indi ak mooy yàlla juróom-ñaari cër yi nga xam ne moom na ko suñu borom subhanahu wa jox cër yooyu yëpp war na leen na sàmm war na war na leen a wattu ba du ci mooy suñu borom bi subhanahu wa taala ndax ab yonent li tax waruta mooy suñu borom bi subhanahu wa mooy ab yonent lépp lu mu def dañ ko cee war a te bu mooyee suñu borom bi subhanahu wa taala kon dañuy jàppane ne ak mooy lu dagan la loo xam ne war nañ koo mën a def euh, di ko ci toppandoo euh, di ci toppandoo ñi nga xam ne ñoo yonent yi alayhim salaatu wasalaam moo tax kon dafa bokk ci li nga xam ne dafa yàlla ci seen jëmm dafa yey ci seen jëmm mu nekk ci mooy ñu am kóolute amaanatul jawaare mooy ñu fexe ba seen cër yi doon cër yoo xam ne dañ leen di takk ba lépp loo xam ne moo mën a indi euh, ak mooy du tukkee ci yooyu ndax euh, ñoom kat ay euh, mbindeef la ñoo xam ne yàlla daf leen a yónni ngir lépp loo xam ne moom la ñuy wax ak def ñu leen ciy roy kon bu fekkee ne dañoo moy ci seen cër benn ci seen cër yooyu loolu e, day tegtale e, ne ñoom dañ leen a war a topp ci loolu te ak mooy kenn du ci e, topp kenn ndax suñu borom subhanahu wa taala moo wax ne la taata li maxluqin fi maasiyatil xaaliq wala boog comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee ne kenn du kenn du topp uh, nit ngir ak mooy yàlla maanaam bul topp nit mukk nit ku nekk ci ak mooy yàlla ak lu mu kawe kawe lu dara jaam màgg-màgg doo ci ca topp kon yonent yi seenu kawe ak seenu màgg ak ñu war li roy ci lépp loo xam ne moom la ñuy jëf uh, wala ñu koy wax loolu moo tax ak mooy yàlla loolu day jomb ci ñoom waaye dañuy doon ay mbindeef yoo xam ne uh, dañoo war a wattu seeni cër sàmm ko aar ko ba euh, du tàbbi ci lenn loo xam ne lu neexut suñu borom bi subhanahu wa taala ndax suñu borom bi subhanahu wa taala dafa wax ne atiu llaha wa atiu rasula da ngeen topp yàlla te topp ab yonentam kon yonent bi nga xam ne moom la ñuy topp wala yonent yi nga xam ne ñoom la ñuy topp faaw dañuy nekk ñoo xam ne ñu am amaana lañ waaye ñu am kóolute euh, ay bindeef la ñuy doon ñoo xam ne euh, Euh, danañ sàmm seeni cër ba lépp lu diñ mooy danañ mooy tamit ku tàbbi ca moo tax mu ne xefsul jawaarixi mooy sàmm cër yi jamian boole seen mutlaxan bu mu ci man door minal wuqon ci tàbbi fillazi ca la nga xam ne xarama ma ko aw fillazi wala ca la nga xam ne karihahu sib na ko rabbu sama borom asamaan kon ñoom yonent yi seen kóolute mooy ñu sàmm seeni cër ngir cër yooyu bañ a tàbbi ci lenn loo xam ne suñu borom subhanahu wa wala mu tàbbi ci lenn loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo sib tabliixuhum bu ñu waxee seenug jotale nag liñ ci jublu mooy wafaauhum mooy seenug matale kóllëre waaye seenug matale maa la nga xam ne umira digaleef nan leen ko ba an yu ballixuhu ci ñu jotali ko xaqan ci dëgg-dëgg lil wara ñeel mbindeefi bu ñu waxee tabliix li ci jublu mooy lan mooy ñu matale lépp li nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala digal na leen ñu ngir ñu jotale ko ci ñi nga xam ne ñooy mbindeef lépp loo xam ne suñu borom wax na leen ne leen jotale leen ko mbindeef yi ab risaala la am message la bu ngeen war a jotale yonent yi mbindeef euh, yi na ngeen fexey ba risaala boobu ngeen fexey ba jotale ko mbindeef yi euh, te bu leen ci bàyyi dara kon tabliix muy seenu jotale buñ ko waxee mooy lépp loo xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa taala digal ñu war ko euh, wax ñi nga xam ne ñooy mbindeef yi ñu war koo jottali ñi nga xam ne ñooy mbindeef yi ñu def seen kem kàttan waaye def seen euh, gépp euh, juhdu du seen gépp farlu ba message yooyu nga xam ne moom leen suñu boroom subhanahu wa taala jox ñu koy eggale ci euh, ñu koy eggale ci ñi nga xam ne ñoo di mbindeef yi comme ni nga xam ne noonu la leen ko suñu borom subhanahu kon ñetti jikko yooyu muy kóolute ak dëggu waaye ak matale wala euh, jotale li nga xam ne moom la leen suñu borom subhanahu wa taala yónni ay jikko la yoo xam ne dafa war mu nekk ci euh, yonent yi alayhim salaatu wasalaam noonu nga xam ne noonu la jikko yooyu mu nekk ci seen jëmm noonu la seeni safaan jombe mu nekk ci seen jëmm ñoom yonent yi alayhim salaatu wasalaam kon ñu ngi tuub tey jéggulu lu ci dëng ñu xam na rek ci suñu matadi la lu ci jub ñu sant ko yàlla ñaa ngi tuub tey jéggalu bu baax in uridu ilal islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullah